asalaamaaleykum oh, mbokk yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk fii ci tant bi ah, maa ngi leen di siyaare bu baax a baax ah, di jiital ci nuyo bi ak siyaar bi mooy sunu imam yi nga xam ne ñoo dëkk ci gox bi teg ci eh, chef de yi nga xamante ne ñoom ñooy saytu gox bi di nuyu ñëpp di nuyu sama waajur yi nga xam ne ñu ngi ci suufu baas bi sama wajuri gur ak sama wajuri jigen ak sama mat ak sama era ak sama jigen ma ngi len di nuyu bu baax baax tay tuub rek ci kàddu yi may yëkkati ndax ñi fi nek sama kilifa ñu fi ci rek sama tonton samba nga xam mom moom kese bu waxoon rek wax bi mën na fa yem ndax sunu kilifa la sunu lepp la ñu koy nuyu bu baax di ko jox ayam di ñaan yalla limuy def muy lu baax yang yok yokk sax ci barki Serigne salihu ah, wa ma ngi nuyu ñep di santaat bu baax Serigne Béthio ah, di santaat bu baax Serigne Béthio sama yaakar sama tawféex sama lepp waaw ah, di ñaan yàlla yermane dem gën a ko ci ñun waaw ngi leen di nuyu di sant bu baax baax di wax ne bu fa barki Serigne salihu ma ngi ak samay samay rak samay xarit samay soxna ñepp la andal xamna suma limé délégation bi rek du mo matal sama rakk seer wax ne ñepp ñom ñepp ma ngi leen di nuyu di bëgg ci and bi ndax and dal da yombul waaw barki Serigne saliw mom yombul de tan kenn nit rek nga ni mom lay andal nga gorel sa digënté ak mom yombul ndax fi mom ay difficulté bi rek fi té te ko kóllëre yombul té ñom dañoo sam sama digënté ak ñom ñi ñu baax kon maa ngi leen di nuyu baax di wax ne bég naa ci ñëw bi ndax di ñoom ami def samay jigéen moo xam ne dañuy yokkal ay tuyaa ba ndax ku tàntal Seydina Muhammad pare mu ne la dem laa woo ci bés bi boole la ci kon kooku denkaa war a sant gërëm ko ndax ñun amuñu ku dul Seydina Muhammad ndax ñoo tax ñu nekk su dul moom du ñu am te moom rek moo mat keneen koo gis ci àdduna matul Seydina Muhammad rek moo mat kon suñ la boolee bésam kon war ngaa sant yàlla bu baax kon maa ngi sant ñoom ami ak seen mbootaay bi nga xam ne eh, nit yu déggoo lañu nit ñu juboo lañu nit ñu baax nit ñu rafet xol yàlla seen ànd yàgg yàlla na ngeen gën a déggoo li ngeen mébét suñu borom yàlla na ko yeggale maa ngi dugg ci Serigne Saliou yàlla na leen ci fekk ngeen am ci lu kawe seen njort ci barke Serigne Saliou waaw kon daal sayer comme ni ñu waxee tey guddi gi daa xaw bari ay programme ndax maa ngi war a dem ba toog jandeer kenn ku ne xam ne sama wëllëri di ak fay di werkaanu Serigne Béthio moo fa def ay cant chaque année mu dippee ba cant yi mu boole kook nag ma bokk ak moom Serigne muy Serigne Seydina Thioune bu Serigne Béthio waaw nga xam ne moom laa yeesal sama ci moom lu jiitu loolu Serigne Béthio ma booleeg moom ànd bi di sax ba dogal Serigne bi ñëw mu nekk sama Serigne kon fu muy dem ma ànd ak moom kon mu woo ma ma war fa dem léegi ànd ak sama délégation ñu dem fa sinon dama doon fanaan ci baas bi maa ngi nuyu nag sama papa Saliou Mbaye nga xam ne tàggkat yonent bi lañ ak euh, ñoom euh, yaat ma yaat ma maa ngi tuub démb ci sa sa bés bi waaw damaa génnoon mujj mu mën a ñëw mais incha allah dinaa mottali ko la rëbbi ndax yéen bu leen defal dara rek Seydina Mohamed la ko defal ndax yéen xëyoo leen ci dara gontowu leen ci dara lu dul tàgg Seydina Mohamed kon yéen seen lépp nit yee ko war a jox ndax ku demul tool nag war a mën a joxe leneen li ñi nga xamante ne ñooy dem xam nan la ko olof bi waxee waaye yéen ñi dañ leen war a sagal ba àdduna yëpp xam di nuyu nag sànq bi doon woy sànq fental Serigne Saliou woy waaw bi mu fental Serigne Saliou ma fekkee mu mu wax ko fii neex na ma torop waa xam naa soo gisee ak sayet du ñàkk ngi ñëw bureau ba waaw ñu gisee ndax man ku tagg Serigne Saliou danga maa neex ndax man aw ma ku dul sëriñ Saliou aw ma ku dul sëriñ Béthio ah, ndax ñoom rek la am ñom la yaakar sama tay ak sama ëllëg waaw te lepp luñ ma mayul soxlawu wu mako man serigne Béthio la yaakar tay ak sama ëllëg ndax nu ma mel momako def su dun wol mom maag ñi nekk ci àll bi di for ay ciép yu nepp di lek mon ñoy yam ndax nit ku baax jur na la ba tay ñu fekkal ci liñ la wat rek fekk imam jak wala afisu alquran mo la jur waye serigne Béthio jikko yu mi def ci ñun moy ak taalibe bëgg sa mbokk doomu aadama am de tey dox ci loo xam ne loolu la yàlla bëgg lu yàlla bëggul nga génn ci waaw ndax ku ne foo nekk yaa fay sëñ Béthio man Tivaouane Peulh ah ma nekk taalibe sëñ Béthio sañ naa ko wax ku ma gis oh. naan taalibe sëñ Béthio def lii kon yàlla na ma sëriñ bi dimbali ëmb ma ba kenn loo xam ne dañ ma ciy reetaan waa ngir sama sama kóllëre ak moom kon daal maa ngi nuyu ñëpp di wax ne pét naa su ma doon wax ba suba barki Serigne Saliou ci sama xol la ne li jóge ci sama xol ci seen xol rek lay dem ndax lu jóge ci xol ci xol lay fanaan maa ngi sant Serigne Saliou te dinaa ko sant fii la 29 ah sëñ sëñ Sall Gold Tappé war a ñëw di taawu sëñ Béthio di xalifam te maa ngi koy yëgal ñëpp waaw képp ku ma sopp rek te bëgg ma te bëgg sëñ Béthio bëgg naa bés boobu ngeen santale ma Serigne Saliou ci diwaan pël xam ne am nañu gan ndax man de lu ma am ñooñu ñoo tax ma am ko de waaw te ab cant waaw moo tiitaru ñaar yu digaloo la kudul sunu borom xamu ko ab cant ku ragal du ko def waaw ku ragal du sant ndax li la yàlla defal boo ko ñemee wax ci mbooloo mooy dangaa nangu li la yàlla defal waaye soo nee du ko waxee ci mbooloo ñu catuma waaw kon dese ngaa mën a sant moo tax Serigne Saliou ne cant ak tiitoɗu dunia digolol ko ɗum sunu borom kamu ko dina sant serigne saliou tuyan pol ba ñëpp magi ne sant naa ko waaw maa ngi sant bu baax di nuyu ñim àndal yépp di ñaan serigne becco di gol tape waaw yang no yéen bi oyof waaw sëñ muntaxa yal na fi yàgg lool zenero ini a ya kayak lebih relen fi nekk am jam ñu gën a nekk benn gën a bëggante kiiroo ak ŋaayoo amul solo amul solo ñun fii ñu nekk eh, bis la rek ay temps la ay jamono ci neneen la ñuy doxee kon fii ñu toll nañu gën a lu fas ànd bi ay santaat bu baax jërëjëf di tuubaat ci kàddu yi xam ne su déngee rek man maa motul waaw ngeen xam ne sama jëmm moo toll noonu rek waaw maay santaat bu baax sëy bi jërëjëf